Bébé Diène nekk Soumbédioune Takou Do moo ñu woon kanam Bébé Diène moo ñu woon ginnaaw moo xees ñoom ñaar mën nañu wax ne ñoo tolloo ay ñaari ndaama lañu ñoo ngi si biir sàkku ya cey bi combat Bébé Diène Bébé Diène sëgg na daal di ko soo suuf si kàkku de woon ñu daal di sëgg raxasoo ak suuf si combat bi combat bu gaaw la naa doon cey kii combat Baol Production wala fii drapeau Bamba Fall mu ànd ak doomu daam Seydou Gueye drapeau bi géej gi waa la jëm wala day des Médina drapeau wa géej gi waa la jëm wala day des Médina Garkudo école de lutte Balla Gaye Bébé Diène Souba Dioune Bébé Diène ngi sud ab bi ne sible ngeen di waay si géew bi raw mu def observation bi dafa yàgg ab bi ngi sible waat ndeysaan ab bi moo leen jox consigne ab bi sible waat na Ndiaye Ndiaye si kaw ñoom ñaar ñoo ngi dem si saako yi. Gàkkudo moo ngi koy topp. diggante Bébé Diène Gàkkudo. Gàkkudo moo essayé dóor waaye demul. Assane Production pour sa deuxième journée. fii si arène nationale. Gàkkudo. Eh. Bébé Diène dóor na. Bébé Diène tokkas na. di jàppante ay baaraam di jàppante ay baaraam. ku nekk yaa ngi des ak sa kàddu day dem day xeex day xeex bu ñu sonn Bébé Diène dafa mel ni fu mu toll nii dafa bëgg a anti combat bi waaye Bébé Diène waaye gàkku bu mu la teg da si wut sàkk Bébé Diène door na Bébé Diène Eco 12 Soumbédioune Takku Dóor Eco 12 Balla Gaye Médine Guédiawaye tey bi combat Assane Ndiaye di sonal bi drapeau yi fu mu jëm drapeau Bamba Fall fa la jëm Médine Médina wala Médine Guédiawaye sa Mali Gakou delluwaat na si teg si suuf. si fa tey yi waroon def def nañ ko mu si fa tey ne leen seen jokkaas na dañuy déwaat sa géew ba jàpp topp na ko seen jokkaas na boobu dal na suuf la ñuy ba dañuy daje suuf dañuy daje suuf dañuy daje suuf dañuy daje suuf da ngay xeex da ngay suqante da ngay suqante Bébé Diène tibb na suuf waaw waaw Diakounda Bébé Diène. jege nañ saako yi du fay xew ñaari technicien lañ jàpp na tànk ba plaqué na ko daan na ko déedéet amul dara amul dara amul dara Bébé Diène nag amul li may fekk fa lay Bébé Diène jàpp na ko daal di rëbb naa benn tànk bi Bébé Diène yàlla yëkkati loxo bi ndax at at Bébé Diène nga door Bébé Diène nga wut fu mu jàpp door. sàkku ba doo génn sàkku bi am di dem avertissement mu ngay puus pour mu génn mu ngay sukk yow ngay sukk te waaw waaw boobu dal na dal na et eh, ku sedd bi normalement caché leen war a yokk seddaay bi seddaay bi ay pëfal du jóg beneen seddaay ma ni caché la war a yokk amul round d'observation abi bi bi daal di ñëw too laalante ku nekk ñoom sa morom songante Bébé Diène nga sub ma ngay door ma ngay door Bébé Diène ko kor gàpp ngi door Bébé Diène koroon na ko gàpp door gàpp jàpp na eh eh door ba daal na eh door ba daal na oh. dina tàgg ba tey dafay am wala day génnaat dafay am lu muy def. Oh, daanaka bëtt na ko demul gàkku dër daa mën a bëre waay gàkku dër waay waay Bébé Diène waay waay ñaari xale yi waay bëre ngeen xeex ngeen amateur yi kontaan nañ parti yi kontaan nañ waaye bu fa yem oh gàkku Gàkku Gàkku lu mu combat bi du yomb quel combat quel combat ce sont des jeunes ambitieux très rigoureux macha allah Bébé Diène dafa mel ni Bébé Diène mu toll nii

deux minutes de combat moo def sonn mais deux minutes de combat moo def sonn mu toll nii nag doole ak xel moo fa des ey bi mu toll nii nag baron xool dafa mel ni gàkk moom avantage parce que début de combat bi lépp de nu mu bëri. ay foo lamb dafa laaj liggéey. ay waay ndeke joor si biir lay nekk. ay foo lamb dafa laaj liggéey. tey ñaari xale yi. tey ñaari xale yi. ab bisib la waat na si diggante Gackou 2 Écurie Balla moo ñëwoon kanam ak Bébé Diène Écurie Sumba Jun moo moo xees Bébé Diène moo xees Gackou 2 moo ñuul ñaari bëri Gackou 2 Écurie Bébé Diène avenue Soumbédioune Bébé Diène dafa fournir bokk dënër yi commencement bi looloo ko yóbbu looloo tax mu sonn en plus kii comité tamit si la bokk et c'est normal Gackou 2 Bébé Diène il fournit prix parti dafa bëri ñoom ñaar la physique mooy lépp ci sport ñaari mbër yi bu dee parti mel woon nii bu dee parti bi di xiif ñaari mbër yi ku nekk suq sa morom jàppante ku nekk def action kii laal keneen def action kii laal oh. bu leen ko defaatee mu neex bu leen ko defaatee làmb ji gaaw a jeex. ñoo bëgg nit bi dafa seen gaaw leen waaw waaw amit muy parti woowu leen waaye ñu bàttee leen ko. ñoo ngay tibb suuf ñoom ñaar mu toll nii dafa mel ni Ndéne Kairé moo ngi daal forme waaw Bébé Diène fu mu nekkoon ba léegi moom fa moom dafa mel ni défensif la gën a mënee Bébé Diène mais toujours dara sànq ñu naan la. Boa posição aí, Meili. Allez, laissez-moi dire. everything. Bébé Diène daan na waaw waaw Bébé Diène daan na Bébé Diène